أنت ربي وكنت لي بذلك boulevard Taïf Karo nekk fii ci Grand en face hôpital CTO Taïf Karo nag Jibi Bamba mooy gérant bi ah mbokk yi Touba Taïf Karo nag kenn dootu leen ko présenté ci biir réew mi lépp loo doon wër ci wàllu karo yu baax gaawal gaaw ñëw ci suñu biir place bi di Touba Taïf Karo nga mën fi fekk ay karo italien karo espagnol wala karo indien ngeen mën fi fekk ay karo poli 1 pour seen ay salon wala salle de conférence ngeen mën fi fekk ay karo décoration yooyu amul fenn ay carreau faïence pour seen ay cuisine wala seen toilette ay grès poli 60 60 ay plinthe wala ay baget ba ci ay carreau parquet lépp am na ci biir Taïf Carreau ay carreau espagnol 60 60 wala 40 40 marche escalier wala contre marche ah mbokk yi lépp loo soxla ci wàllu matériel sanitaire gaawal gaaw ñëw fii ci Taïf Carreau li ci gën a neex mooy mooy Taïf Carreau defal client yi promo boo jëndee carreau yooyu dem ci kër gi yépp fii ci Taïf Carreau nee naa la matérielu sanitaire ñoo la koy offrir defal la ko cadeau muy siège anglaise lavabo ba ci lépp luy taaral salle de waa Taïf Karo dañ la koy may moo xam kër gi nekk niveau un niveau de wala niveau trois Taïf Karo nag am nañ beneen place bu nekk fii ci Cambérène ah sama mbokk yi yéen ñi nekk ci diaspora bi am seeni sànca fii ci Sénégal bëgg a karole seen kër ba mu mucc ayib adresse bi fii dong la ci Touba Taïf Karo gaawal jël suñu numéro téléphone 77 745 76 88 wala 76 923 33 85 ak Touba Taïf Karo ñooy number one ci wàllu jaay karo ayca mbokkee xarit yi amaat mbégte ak contentement bu baax a baax jano yéen si site bu mag bi di Lutte Motivation di leen jaajëfal mais di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoom ñoo tëdd ci loolu hôpital yi di leen ñaanal gudd fan ak wér ak wér la également tamit ñi nga xamante ni caabi da leen féetee ginnaaw ñoo ngi leen ñaanal li nga xamante ne mooy liberté ba ñu mun a génn wéy li nga xamante ne mooy seen activité waaye mbokk di ñaanal réew mi jàmm mbokk yi tey nag ki ma seet yaakaar naa ne min na siin bi euh, site bi Euh, muy euh, coach coach Assane Ron nekk ndaanaan nekk kenn koo xamante ne ak chaque fois bu waxee ci làmb gars yi dañ koy déglu moom lañ seet si tey fas yéene waxtaanam ci li nga xamante ne mooy làmb ak actualité dama koy bàyyi mu nuyu ngeen bu ko defee li nga xamante ne mooy waxtaan bi coach Assane maa ngi lay ziar. Xalil maa ngi lay nuyu bu baax di la bëggee naan la lool sama doom. Cheikh sama ta sama taaw bu góor bi. xaw may Arsenal nga sol xam loo def nii maa ngi nuyu gars yëpp di nuyu Serigne Dame Lo bu baax a baax depuis Touba moog Fallou boutique maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax a baax nuyu sama xarit sama soppe ndeysaan damaa bëgg rek ma bëgg ko muy simeer simeer mu sëñ Babacar Si simeer foo yendu yàlla na fa jàmm yendu foo xëy rek yàlla fa jàmm yendu di nuyu sëy naa bu baax sëy naa Issa Laay sama xarit sama rakk di nuyu Pape Birane Manga taalibe Baye Laay taalibe sëñ Malick caw Laay après ñu ci waxtaan bi coach nuyoo am na solo yaakaar naa ne am na ñu bëri yaaxamti woon nañ li nga xamante ni mooy euh, tabb bi ñu tabb ki nga xamante ne mooy euh, monsieur Malick Ngom mu nekk président CNG yooyu nan koo gisee yooyu mbir. waa xam nga euh, lamb moom bu amee lamb coow la baaxoo waaye lu coow li bari bari na na na na doon dëgg parce que dëgg rek mooy mujj lépp loo gis tey coow li bari ba mu dëgg du yàgg te lamb dafa nekk benn milieu boo xam ni milieu bu naqaree conditionnel la. parce que bëre yëfi dof la boo xoolee mbëri ci bari amuñu xel pour promoteurs yi bari seen personnel moo leen ci bàyyi Malick laa yërëm man. noo dama koo yërëm. lan lu bees neex sëf lu bees neex sëf bàmmeel te gis nga poste bu bees moog jigéen ci ji bu bees a yem buy bees day neex waaye ba ordonnance yi commencé dugg médicament yi commencé dugg jàmbat gi commencé am ngor moo la fay bàyyi. léegi nag milieu làmb ñoo kaas ba jëlee fi Bira Sène ngalla nañ jàppale Malick Ngom te bañ koo fa xastal problème mu làmb nag mooy tey bu ñu bu ñu bu mbër mi defee erreur seen seet dur ko daal mm-hmm. ñu ne pourquoi sax mu koy def loolu te lañ doon kaas si Bira Sène mm-hmm. doo ko boo leen temps rek ñu kaas ko ci Malick Ngom mm-hmm. parce que euh, yàlla mu bindi doomu aadama yi sax dafa ne yaayu lazina amunu daan yaayolu naasu daayolu kaafiruuna yaayolu nit ñëpp la wax yaayal mu'min ñu gëm yàlla la wax yaayal kaafiruuna ñu weddi la wax. kon boog tey benn texte mooy am Malick Ngom na ci teg bu mu ci bañ ko ko ci mere bu mu ci bañ ko ko ci bëgg. na doon dëgg te ba mu bañ mu bañ a ragal fi mu jëm parce que mu jiite dafa métti. da ngay avancé te bañ a gestu mooy tey commencé ci yaaw jaal ci Balla Gaye ci Modou ci Ama Balde ci Lac de ñëpp. la loi c'est la loi. dëgg gi mooy dëgg gi. ku def lu yoon jag luñ tere. ñu rëq seen dëgg. waaw loolu. li priorité li nga xamante ne moom la war a jiital d'abord. mooy fulla ak fayda liggéey teg ko ci yoon bañ a déglu kenn naa feq yi ne ci biir làmb ji mu teg leen na le borom xel yi ak borom xam-xam yi mu déglu leen loolu rek bu bëggee dem parce que nga Sénégal il faut ñu roy ci ñaari mbër yi Yékini ak Tyson. man dama leen fonk parce que du ñu wax mukk nga ne un promoteur yi mbër mi dëkk promoteur bi dëkk parcelle lu mu tudd. man Ba Ba kan moo mosoo dégg mu wax wax bu ñaaw. nit da nit maanaam nit da ngay am personnalité nga nekk nit ku dëggu booy wax nga wax ko sa aqulaay taala bu fekkee mënoo wax sa aqulaay taala noppil parce que naa fekk baaxul. man daal père Malick xam nga Malick moom mënu ma cee wax lu bari parce que Malick sama turandoo bàyyi la. waaye père maa ngi koy conseillé ne ko borom xel rafet déglu leen ndax fekk nga pousse leen ci àll ba soo bëggee avancé bu bu la kenn ger nag parce que promoteur yi da lay ger pour bëgg dawal seen business dëgg dëgg rek dëgg rek xàq bi xàq bi lay dóor kese. mais am na ñoo xam ne nee nañ euh, yenn promoteurs yi gisee ñu ànd ak Malick Ngom seen intérêt lañ jiital que intérêt général da ci am promoteur yoo xam ni dañ lay ger pour mën a seen business dox. léegi nag loolu moo lool la loolu nag moom su bëggee CNG bi dox na ko dindi. deuxièmement li ma gën a métti ci làmb mooy da ngay jël mbër mu ndaw war koo fay cent mille francs jox ay bolok loolu na ko maa dindi. parce que mbër bu fekkee mbër mi mënoo ko wóolu am si moom confiance jox ko sa avance kon kay jarul nga koy bëreloo. ok affaire marché ak géré géré yooyu moo war a denc ci làmb. ok defal ma lii ma defal la amul. ñenn ñi di kaas tamit eh, yenn promoteurs yi nga xamante ni léeg-léeg tëgg mbër trente mille francs yu mat sax duñ ko ko jox. Mhm. ñu ne léegi bu ñu demee ba yenn promoteurs yi di tëgg lamb dañuy joxe caution bu mat joxe lu doy pour mën a tëgg li nga xamante ni mooy làmb yow noonu. loolu mooy yoon loolu mooy yoon làmb entreprise privée la bu fekkee li état bokk ñun ñoo ko moom ñoo ko bokk ñun Sénégalais yëpp. waaye bailleur de fonds la boo xam ne bailleur de fonds privé la ku nekk yaa génne sa moonin dem tëgg say journée wut say sponsor soo amee bénéfice doo ci may kenn sa bopp nga koy def kon da ngay fay caution c'est normal c'est normal. kon daal bëgg lu yomb amatu fi. Tapha Gueye Tapha Gueye Tapha Gueye Eumeu Sène lu ko yàq doomu dul Ndiaye moo ko tëggoon tëgg na combat bi ba combat bi yëpp amul sponsor ñu aj ko mu jàppaat date amul sponsor xaalisam niil c'est normal balaa ngay togg supp kànja da ngay am kànja bu mat am tiir. am yoxos am paañ waaw doo ko mën a tëgg doo ko doo ko mën a tëgg supp kànja ok waaw. fu may jeexale yow ci mbir moomu mooy gis nañ leen rek euh, gars yi dañuy yenn promoteurs yi dañuy déclarer ne par exemple euh, Koutoumi ak Cheikh tant de millions lañ leen fay comme ça cent millions lañ leen fay. te newul loolu ñu yóbbu biir CNG yooyu tamit est-ce que jotul tamit ñu dagg loolu di déclarer li nga xamante ne mooy réalité lu lu fa am. xam nga loolu CNG mënul CNG mënul foofu dara CNG li man mooy avance bi nga ko jox mu teew xam nga fii lu mu daariyoo ak fii lu marine bokkul lu présent wul ak lu présent mu bokkul tey li présent da na ñëw ne 40 millions 40 millions laa fay wala 60 millions yi ngay dégg sponsor yee ko joxe CNG moom fi mu mën a dikkandiku rek mooy indi nga indi nga 40 millions loolu lay bind. waaye i ngeen signé papier yaa ginnaaw si yaa ginnaaw mbër bi loolu yoon CNG nekku si. boo ñaa yóbbu fu promoteur boobu gendarmerie foire. xaalis sponsor la parce que làmb bu dafa bëri dil waaye dil bi ci mën am li ngi li dil dil bu mu mën a doon teg ko ci teg ko teg ko ci suuf ful la mu jub parce que jub mooy lépp boo gisee coow yi ne ci làmb ji yëpp ñi seen intérêt personnel nekkul ci bira seen ñooy ñooy jooy xëy na tamit dañoo ne bu ñëwee Malick Ngom ñëwee day nooy déedéet Malick daa war a mu gën a dëgër. waaw mooy yoon. yaa ngi nga yaa nga bu ñu bëggee làmb baax amul négociation. lii la règlement bi wax ñëpp ci tënku. macha allah lii la ñuy wax ñëpp dañ koy doxee. waaye amul dóor doom dàq doom. comme li fi nekkoon. am solo bu ñu ñëwee coach Assane wax ko tamit ci li nga xamante ne mooy dëkkuwaayu géejuwaay. Mhm. gis nañ fan yi géejuwaay macha allah gis nañ image yi ci diini yi Balla Gaye gis ki nga xamante ne mooy Lac de Guiers 2 Alioune Seye ñoom Mathia xam nga ñoom ndigal et cetera. Mhm. ñoom monument géejuwaay liiru. Mhm. yooyu nan ko gisee. yooyu vidéo ak yooyu boobu ànd. non lu baax la waaye pour man daa yéex 100 pour cent Guédiawaye 2006 la waroon tàmbale jamonoy Lac de Guiers Modou Lô ba lañ waroon continuer kon est-ce que Guédiawaye bu ñu am bu ñu bokkee ndey boo ko bàyyi ki ëpp leen doole parcelle ñoom ñam nañ ko neex na duñ ko bàyyeeti yëmbal Malika benn baraak ñëpp noonu lañ def tey li commencé fii Big Diop Diop 2 ba général Malika. Bouba Aliou Fatfat Aliou ñëpp benn bopp lañ def te loolu moo tax ñu am doole affaire bi moom méttiwul de lu waay liggéey rek moom ngay fayeeku tama dama ciy kontaan bu baax di leen encouragé li ma leen mën a yokkal rek mooy nañ ko def ànd boo xam ne ànd bu sincère lay doon bu mu nekk àndu tàggoo jëwante àndu ngesal àndu naa fekk du sori parce que mbooloo moom bu ñu bëggee ànd dañuy juboo tàppe xol lu waay yéene sa bopp yéene ko sa morom loolu rek mooy jàmm sinon dañuy tàkk sondelu mbedd lay doon rek tàkk léegi fay léegi. Mhm. waa kese. bu nga ko defee la bu nga ko gisee la la def au fond du cœur. ah dama ne lii bu fekkee ne lu dëggu la baax na parce que mbëru géej bu buñ génnee di demandoo dindi mhm. di kontaagandoo mhm. xàccandoo dóorandoo la ñu amaat leen leen amaat benn mbër bu bees biir géej waay. mais am na ñoo xam ne gamuñu ba tey ni 100 pour cent am na. waaw ah, parce que tamit xool yi parce que xam nga tamit géej waay moom. dafa bëri waxu suuf suuf suuf suuf suuf. waaw loolu loolu dafa yàgg. parce que guy gi Balla Gaye Lac de Guiers ñëpp dañoo nekkoon benn say xale yi topp seen ginnaaw mu ñu jekk fantasiro loolu boobu ñoom mag ñi ñoo rek waaye bu ñu matee di déggoo di xàccundoo dóorandoo lu waay dégg woo sax morom ne ko ah lii ma dégg nu mu demee mooy la lii ak lii la demee duñu xuloo duñu xuloo xanaa amoon ne coow bu amee rek dañ koo waxtaanal fi ñu ko a waxtaanee rek waaye bu ñëwee ci kilifa yi toog man géej waaye benn wax laa leen di wax jour mos naa koo wax mbëri ndaw yi nañ topp ci ginnaaw Balla gay ak Lac de Guiers ñooy seen baay ci làmb boo bëggee dégg-dëgg fii kuy wax géej kuñ fiy wax géejawaay tey géejawaay bu doon buñ doon ba États-Unis ñu ne géejawaay Balla gay moo tax kon mbëri ndaw yi leen rek lañ deseel Balla gay di ko sukkal di ko raamal di ko feccal mu leen moom mu leen di encadré di dimbali ci xaalisam di leen dimbali ci xam-xamam moog Lac de Guiers 2 buñ ko defee am jàmm am salaam de am doole. mais gars nee na neex na mais buñ bëggee mu gën a neex dañuy gis Sa Thiès mais gisaguñu Sa Thiès. Sa Thiès doomu géejawaay la kenn daa mën a génn Sa Thiès géejawaay ku ko dàq bëri bëri géejawaay nañ dem jëli Sa ñu ànd ba Sa Thiès ànd Balla Gaye ànd saa kii la dëgg guerre ànd guy gi ñu jëli guy gi ñëw ñu boolal doon benn ginnaaw ay jàmm man de dëgg yàlla li may li may li may wax laay wax lu ma dul wax sama mag du ma ko wax magu jàmbur lu ma dul wax sama baay du ma wax sa baayu jàmbur lu ma dul conseil nit na ko wax ko sa baay bu sama baay taxawoon du ma ko ko lu ma dul conseillé dina sa mag bu sama mag taxee du ma ko ko wax parce que tamit nit ki respect day am ki la mag moom munoo wax munoo fexe fexe ba nekkul sa mag kon na rafet. jàmm gën jamaa. jàmm gën jamaa jamaa boo ko amee te amoo jàmm foo jëm musiba ak naaru laay ñaari dëkk fi am soow mi tey ko suukaree ba mu saf def ci caagiri kee xëpp ci suuf amatuñ cere mu saf def ci galaas diko ko naan xol bu sedd ah foofu lay baaxee. mais suba diggante général Malika. jam téeri mu nekk ñaari jàmbaar nekk ñaari ndaaraan ñoo xamante ni euh, daanaka bu ñëwee ci làmb à chaque fois dañuy wane seen bopp. waaye combat bu am solo la ñuy bëree suba si seen carrière ñoom ñaari mbëri lan nga may wax ci boobu làmb. waa xam nga combat njool ak ndaama. jam téeri am na corée droite bu bon. général Malick am na corée gauche bu bon. waaye jam téeri pour mu door général Malick da koy jege. parce que moo gën a gàtt ay il faut mu daw tuusi ko daw xaaj ko. man général Malick su ma ko indi woon si relance am laay parce que maa gën a gudd ay cër. dama koy déglu fu loxo góosam jógee ma def retrait remise ko. bu jógee ma daw bal ko. te en général combat ñaari lourd ku gën a mobile. gën a rapidité yaay daan. ñoom ñaar tey boo doon xayma seen sañ-sañ. non xam nga général Malika moom bu dee wàllum bëri mën na ko te jam teeri day jam teeri benn combat rek la fi mos a bëri fot benn combat la fi bëri fot mooy contre jab gabaar siin ci la ko gabaar dóor ba xamatul tànk bu mu war a jiital changé na gauche ba changé droite ba parce que ñoom ñaar ñoo tolloon taay te gabaar da koo indil keroog loo xam ne jam teeri attanu ko te général Malika mën na bëre mën na xeex waaye leen rek mooy yàq kalambam mooy day yàkkamti général Malika fils de Balla war ko daan déedéet moo indi xeex bi moo indi bëre bi bañ kontre ko wër ko ndomb mu daanu. làmb da ngay entraîné trois mois boo ñëwee da nga gis tey boo nekkee njool da xeex sa relance da ngay déglu ndaamali fu mu jógee rek nga fu mu jógee nga remise tey ñi bu nekkoon ña mbër yu si bëri koo ci dóot duwaat ko rek bu yàggee day juum te général Malika bu ko jam téeri xaaj. général malik bu ko jom teeri xaaj général Malick général Malick moom nangu jam dugg ci naqam parce que bëree boo nekkee ndaama da ngay dugg ba jeex pour nga mën a bëre boo nekkee njool ndaama li bu dugg ba jeex da ngay mën a bëre ndaama ci suuf lay bëre njool ci kaw. jàppal ma jàpp foofu noonu. waaw ku ci gën a ku ci gën a wóor bëri mooy kuy dëbb col kuy dëbb col. mën ngaa door sa morom hypercule daw plaqué ko wala nga caxabal ko wala nga takk ko weñ ko tuur ko waaw wala nga dóor ko mbootu ans parce que bëre poids lourd la mënut a action yi mënut a rapide sa noonu. gis nañ ki nga xamante ne mooy Diam euh, Terro euh, ci face face bi euh, xool la doon waxee loolu bu ko indee ci làmb. ñàkk daanu lamb du làmb du signature làmb biir géew la te yu bon agal ubul làmb maala man maala man daa neex rek da da reer ba suur mbaa nga ndékki ba suur rek mm. waaye góor comme yow. ñu jox la avance muy entraîné ngay entraîné nga tëj ñu jox la micro nga ne yaa ko mën da ngaa ja da ngaa jàpp sa wax bopp rek waaye xamal xamal sa ba su morom morom. général bu taxawee di déglu Diam foofu lan moo nar a xew. non combat bi daa mën a bër te Diam dafa am foor Diam bu la xasee daw dugg sa wet googu da genre xar géppit yooyu la mu fiile la kon général Malick daa war a fatt bañ waa xaaj ko combat bi il ñu xeex. parce que xanaa doon ne ma jam tiir day def ak sooru parce que bëre saa boo yoru dajeeg épirkil kee général Malika saa bu yoru dajeeg épirkil mais il faut ñu xeex. ok bu général taxaw sur place ce que li mu bëgg dëgg si làmb ji dina ko am. non il faut mu xeex ak moom général il faut mu xeex. ok jël ay responsable. dafa am foo hmm. la. mën na duma jam tiir. bañ a moo moo gën moo gën loxo moo gën gudd loxo maanaam. da koy remise da koy déglu rek fu mu yëngoo sànni góos mu remise ko góos déplacé wu. ok mais gis nañ face to ko dara moom général may Malika mayul jëm teeri dara ci li nga xamante ne mooy face to baat ak tontu la. xam nga làmb. Mhm. argument la rek. Mhm. ku ci ne da nga jàpp ne yaa mën sa morom yaa ëpp doole. Mhm. parce que tamit man loolu laa gëm. kuy bëre ji da nga jàpp ne yaa man yaay bëre yaay daan waaye kenn dem làmb naan dañ may dañ may daan kon jarutu ko. général Malika mbër la. Général Malika tey amatul loo koy wax ci làmb loolu teel xool fi ngay bëre parce que tamit mbër boo bëree ci Adrien Senghor def champion d'Afrique jaar bari équipe nationale lan moo la manqué ci bëre. ok yàkkamti rek moo yàq làmb. fan nga gis ni Diam Terry war na fa mën a jeexal làmb ji. Diam daa war a xeex daw daw jàpp daw daw xaaj ko parce que moo gën a gàtt ay cër Général Malika bu njëkkee jàpp Diam Terry Diam Terry du jàpp te tey day dans les normes man boo ndiwoon woon Général Malika dama koy wax xeexal ak moom daw sol ko neex bal boo ko ndengeñee dawal takk ko weñ ko wala nga dóor ko placage bu bañ a nga jaxabal ko. man su ma indi woon jam yi dama naan ko jegal général bu Malick. soo ko dóoree bu jóg nga daw dugg ci dugg ci poqataan bi. daw làq sa loxo bi ci ndigg li mm-hmm. te ci pokataan nge ngemb li mm-hmm. da ngay weñ mu tëdd. wala nga tegal ko siège wala nga xar jéppet mm-hmm. waaw. seen état de forme ah léegi de ku ñu jox ku ñu fay million. nangoo entraîné say bagage la daanu moom yàlla daal mbër mbër muy bëri da ngay daanu. waaye su meeku ñu ne kii sport moom daa ñàkk mbër bu ñàkk fay laa koy def. dafa dis ci làmb ji. xam nga préparation combat ku ne ku ne xam ne nooy nooy yow si bopp ji nax tey général xëy na waaye lu mën a am rek na doon poids boo xam doole lay àndal mooy poids boo xam day dool masse musculaire lay doon masse musculaire mooy loo xam ni day muus bu pare ànd ak endurance parce que mbër moom ñett la rek physique contact musculation takk gaa xeex. fit nag boo ko amul mën ngaa bàyyi bëri. fit boo ko mën ngaa bàyyi bëri. parce que bu dee élément am ay gaa la ñuy sol. fii nag kentu kentu lañuy door dóor. pour góor la. gis nañ ñoom ñaar seen combat dafa ndakaree taxawal ñoom ñaar ku si daanu wala ki si daan fan nga jëm ku si daanu lan moo la ciy xaar. dafa nekk ñaari mbër yoo xam ne dañoo nakaree wutal adversaire ku ci daan moom dama laa yërëm ku ci daan moom laa yërëm parce que jam jam téer am na sens si benn côté mooy moo promoteur am ñu dëkk këram promoteur jam téye rek promoteur bi ñoo Mbambilor kon kooku am na fu mu wéeru général Malika nag booy booy Dakar dañ koy daw parce que boo xoolee général Malika benn défaite la am n'est-ce pas. waaw ah, ah. ñaata défaite la am. parce que trois yooyu. Ah, ba tey baax na xam nga trois défaite nga am trois défaite am huit victoire sax baax na mbër kay li bañ li bon mooy quatre défaite cinq défaite six défaite. Mm-hmm. loolu moom mosuma naaru laay waaw noonu la demee.